benn affaire boobu bu nice nag benn affaire boo xam ne bii euh, c' est est c' était naturel euh, jour benn jour la woon rek cosaan temps yu Youssou mi ngi joué cosaan temps yu morceau boobu moo xewoon laa euh, dem dem dem fan. bon comme ñun ñu ngi dëkkoon Grand Dakar local super jamono bon ma tëdd ba benn moment ma ne ay eh, xaar ma dem taxonti yi quoi xam nga génn noonu tey ba rek gis. foofu fees dellu quoi am cosaan bu joué déjà da ngay kontaan parce que day fees mu ñuy ñëw déglu si quoi donc bon ma ñëw dugg cosaan yi ma ñëw fekk Youssou di joué morceau boobu au euh, oh, oh, oh, dem dem dem ci feewu morceau bi ma yéeg bëf ci morceau bi quoi bon ma pare c'était la première fois sax quoi loolu noonu quoi yàlla nag xëy moo dogaloon ne xëy jour boobu la ñuy am euh, bés boobu noonu quoi mu ne ma may ga doo demee noonu cosaan ngi fees dell Euh, ma ndeysaan nag dem si yàlla si euh, rakk ju baax ci Habib ndeysaan euh, yàlla na yàlla yokk leeram Habib Faye ñu mu ne ma noo fa nga def benn affaire quoi fa nga joué mu ne ma dama bëgg nga xool morso bi la bu la neex ci samay woy laa bëggoon tey nga woyal ma ko ma ne ko ah boo mu ne ma ne ko mais ma ne ko mais li nga woy lépp a neex mais man sincèrement neex la ma trop nga war a din quoi jàpp loolu mu ne mais gars yi ñu joué jàpp ñu joué ñu joué bon ñu commencé joué moom vraiment mu nekkoon ñaari baat yu doy wax ci biir salle bi ñu joué di di di ma woy woy bi ba mu jaar bon vraiment mu mu mu neex ko. waaw waaw waaw séddañ dañ voilà voilà voilà donc bi ma ko woyee ba pare moom ci boppam ci micro biir cosaan euh, mu daal di ne ma ma may mu ne ma woy bi saa boo ko bëggee woy woy ko jox naa la ko. comprendre pas jox naa la ko jox naa la ko ak droit yeeg yëpp quoi mais c'est-à-dire boo ko centré way way ko li may wax nii ça doit faire peut ay euh, parce que jamono cassette boobu jamono CD boobu war na def léegi ay boobu dafa ko ma sax jali donc li may wax nii war na mat ay peut-être ay 16 ans wala yàgg na xam nga donc nag depuis boobu nag ma jàpp affaire bi téye ko ne non jour je vais le et puis mu nekk style bu ma neex bon ma ma defoon am na suma benn album def naa ko ci sax mais mais si ci ci beneen euh, mode de musique ba xam ne bii ak sumay musiciens de nasaraan yu nekk foofu bon bi ma ñëwee ci projet bi ma ne mais non dama koy jouaat mbalax ba mu saf euh, su ko defee ñu liggéey ko bi ñu ko liggéeyee maag Papis aussi euh, mu nekk affaire bu nice mu nekk lu ma neex d'abord defuma ko tamit aussi parce que euh, parce que man ay woyu jàmbur déjà ça m'intéresse pas di woy woyu jàmbur wax dëgg yàlla loolu moom mais su ma woyee woyu jàmbur rek dafa fu ma koy teg loolu moom moo andi jàppaloo tax ma woy ko ci biir kii bi te loolu xam naa ni euh, Youssou loolu dina ko rappeler ba bu ko dégg loolu dina xam ne effectivement effectivement Maïga wax na dëgg loolu moom moo tax ma woy morceau bi di ko ci rendre hommage parce que ba pare aussi tamit mu nekk grand boo xam ne bi wax dëgg yàlla macha allah. parce que boo boo nekkee taaw ci famille mën ngaa bañ a nekk sax taaw ci famille yi mais bàyyiwoo góor bàyyiwoo jigéen c'est-à-dire ëmb sa famille yëpp di leen rek xam nga te loolu dafa jafe ci famille ah aussi waaw donc euh, yooyu yëpp ay qualité la yoo xam ne dañ koy wax nit moom am na yoo xam ne yu lu ci nice rek nañ ko wax xam nga donc qualité yooyu yëpp quoi moom moom ma xam ko ci moom bon moom ma euh, ma rendre ko ci hommage mais du rendre hommage yu dara c'est c'est naturel. Euh, donc euh, <laughs>